loolu laaj sànq ba xam weetu leen ci ce combat de Barthélemy Diaz dans l'affaire Ndiaga parce que boobu noonu ñu bëri xam nañ ne wax dëgg yàlla injustice la Barthélemy a été donc il n'a sa que se défendre ku mu doon noonu ngay def donc mais cette affaire qui tire en longueur yëfi xewaat ba ki dem Barthélemy Diaz nar a euh, amaat benn benn revers maanaam est-ce que réellement yëfi am ngeen ci wu Sénégalais yi. non xam nga loolu am na lu gën a bees moomu daawa mooy kaw suñu frère mu ngi ko jàpp ci kaso bi boobu léegi parce que jàpp nañu ñëpp ci kaso bi loolu moo gën a bees moo gën a métti. est-ce que cas yi bokk no non Ousmane Sonko lañ ko taxal ñetti mbir la yoo xam ne bu ci nekk xëy na am na lu mu ci def. on parle de mobilisation citoyenne. Mhm. auprès de l'opposition. la ñu wax xeex bi engouement bi gars yi war am que am nañ ko man ne la tey kaawu Ndeye Diouf ak Bassirou ça fait dix ans douze ans. Mhm. n'est-ce pas il ne reste que la cour que la cour que la cour que la cour suprême. Mhm. qui va confirmer ou bien infirmer mais bi gën a métti mooy cas Ousmane. ah oui naka la méttee ak ay nit kon dañ la métti. non mais si bien sûr métti nañu kay tax métti wuñu parce que dama ko wax barki démb ci benn émission. Mhm. ñun suñu position mënul changer. il faut que sénégalais yi xam ko mu leer. pourtant lu nekk yekk nañ leen ko. c'est à tort te histoire dina ko leeral parce que amul ñu lenn luñ def lu tax ñu mun ñu xalab wala ñu mun ñu ŋañ. amul on ne peut pas me dire ce qu'on reproche à Khalifa Sall si c'est pour dire dafa dem dialogue loolu leen koy reproché loolu moom du reproche parce que leeral nañ bi ngi dem dialogue te dem dialogue du lu bon mhm. parce que man tey la chance que Ousmane Sonko a pour être parrainé c'est le parrainage parlementaire mhm. fu mu jógee seen coalition dialogue la jógee non dialogue la jógee ak ki dialogue le parrainage parrainage euh, c'est vrai c'est vrai le parrainage des élus mhm, c'est vrai bu ñu demoon ñëpp au niveau askan bi def suñu doole boole suñu position xeex ak pouvoir bi on aurait plus d'acquis. kon juste attendez attendez si je comprends bien Ousmane Sonko vous doit quelque chose. non parce que non si bañ mën nga ko bañ a nangu mais man je dis si parce que dialogue bi ci ngeen acté parrainage des élus bi nga xam ne tey jii ni Ousmane Sonko loolu rek la mën a jël pour espérer am ay parrain. xam nga sànq dama fu mu départ. oui nga dagg ma taxawu Sénégal. Mhm. waxu démbam mooy ñun dañu jàpp ne Karim Wade la woon après Khalifa Sall. Mhm. te Ousmane Sonko. le but c'est d'empêcher la candidature d'un opposant gênant li daloon Karim ñaan bu mat Karim mat Khalifa mu mat te Ousmane dara bee suuf Khalifa bi muy koy empêcher bu nekk candidat moo ko doon leer li def na parrainage déposé. Mhm. déposé caution. dem na ba nekk électeur et parce que le procès était en cours. loolu ñëpp a ci seen bët Sénégal après lañ ko lem ak rabattre bi ñëpp a ci teg seen bët. il était électeur au moment des faits maa ngi wax ci livre bi. Mhm. mais ñu ne ko doon candidat loolu loolu jaay doole Ousmane tey bi ñu ko jàppee jàpp ses principaux lieutenants jàpp ses principaux collaborateurs. ñu leen jàppale complot politique yi contre Ousmane. problème ñun li ñu wax ma suñu wax tey. mais Moussa mën ngeen nekk ci principe yi ba ma eggal foofu mooy que ne Ousmane dañ ko war a réintégrer ci liste électorale yi. Mhm. dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram mag ñu mu àndal il faut libérer les prisonniers politiques mu déposé dossier am comme ñëpp compétit comme ñëpp. mais yow homme d'état nga est-ce war nga wax ay prisonniers politiques. mais du si ñoom mën naa leen comprendre ñu wax ko. mais quelqu'un qui qui ki qui qui met euh, les rues à feu à sang quelqu'un qui allume euh, bus yoo xam ne ay nit a ngi ci ah quelqu'un qui s'attaque à des euh, maisons d'autorité ah yu mel noonu noonu est-ce ngeen woo ay détenus politiques yow Moussa Taye un homme d'État xam nga parce que demaguñu jugement ok flagrant délit na ci mais ba léegi demaguñu jugement ci ñu bëri am ngi instruction mais li wóor te am mooy ñu jàpp ñu ci bëri ñu ci ëpp lakkuñu pono taaluñu bus Mhm. ñenn ñi seen kaddu la ñuy jàppee Bassirou Diomaye Faye tàllul ñu bëri ci ñoom ñu kaso bi pour des raisons politiques xam nga ñun on est on est des hommes politiques. Mhm. homme politique a dem kaso pour des raisons politiques n'est-ce pas mais li am ci période bii nii mosul am Sénégal.